donc lolu, sur tout le processus ñun ñun ñoo koy def c'est la DGPU amul keneen ko mën a def fii kenn jaayu fi suuf aussi dama bëgg mu leer fii li ñuy def mooy suuf si dañ koy joxe comme genre location là mais location boobu bàyyi la 270 par mètre carré donc lolo, pour rek président de la république dafa bëgg bouger de politique du foncier fii ken jaayu nous promotion la promotion la délégation pour la promotion des pôles urbains et du lac Rose lolu une fois wax aussi bala ñuy wax dañu xam parce que dañuy décourager investisseurs yi nga xamné xamuñu ko sooy jaay réew dang dans sur tous les plans plan politique plan économique plan social plan incitatif en matière d'impôts et tout ça